jërë ngeen jëf dëkkub Seydi Hadji Malick Sy ba di Tiwaawoon fa la Sud Quotidien yeewoo tey yéeral xët mu njëkk journal bi ay waxtu yu néew dox suñu diggante gàmmu gi waaye yéenekaay bi gis ne ca Tiwaawoon nit xajatu fa foo sànni mbàtt mu tàkk démb ci alxames ji moo ne woon tëjtal burdu bi nemm ke nañ fayit way politiciens ne bari nañ fa ay tànk lu soxal wàllu kaaraange gi sud nañu caaxaane wuñu ko benn yoon ñaari junniy takk der ak juróom-ñett fukk ak juróom fukki nit ak juróom di ay nit yoo xam ne gàmmu si wuñu waaye dañu doon ras si dem sapeur pompier it bi nee nañu des suñu ginnaaw ci matuwaay yi ñu jël ci gàmmu gi ñeenti téeméeri pompier ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoom la ñu yóbbu ca Tiwaawoon boole ko juróom fukki wotey pompier ak juróom l'observateur xëy ak ñun ci cahier spécial bu mu def ci gàmmu ren gi di ñu wax lenn ci mbóoti tarixa Tidiane page 4 ba 11 lépp yéenekaay bi ci yoonu Tidiane ak ci gàmmu gi ca la ko yamale li tax Seydi Aj Malik Si radiyallahu taala anhu fi burdu Mam Mor Xujja di kilifa gi nga xam ne bi Maodo wàcceeb liggéey moo ko taxawu jullee ko ba ci kàddu yu mu nangoo ci soxna Aminata Si mu leen di wax na wéyjuram wa Serigne Babacar Si radiyallahu taala anhu doon defee gàmmu lépp mi ngi ci l'observateur l'observateur dem na ca Njaasaan dem na ca Medina Baye la tribune moom ci Maodo la xëy dem di Seydi Hadj Malick Si moom la xëyee topp ay tànkam wax ñu lu bari ci dundam ak ci jaar-jaaram ñu jaare fa xooli coowal Petro-Tim li la Sénégal nee nañu Souleymane Ndéné Ndiaye mi mi ngi koy wax ci biir la turbine zil ndey na nee convocation bi jaarul ci yoon convocation sans objet la te moom amul jotug di dox ci yooyee avocat te it premier ministre la woon ci xam na bu baax convocation bu tege ci yoon ak bu ca tegewul mu ne li tax ba bi ko alkaati division investigation criminelle yi woolo woon mu demoon wuy ji leen ca woowin wala dañu ko convoqué ci yar ak i teggin ak ci kaw gëdd dayo bi mu am ci réew mi ka wuy ji woon doyen di siis ba mu génne wax na ne ñi xamul dara ci nag du leen dégg Pape Massata Diack doomi Lamine Diack ji ñu dégg ne ma nga woon démb ca bureau doyen des six journal Source A ngi ñuy leeralal la ko fa yóbbu woon la mu fa wax ak la mu fa jëlee ab awokam di maître Moussa Sarr di ñu wax ci Source A ne ab kiliyaanam bi mu jàkkaarloo ak doyen des li ko justice walis bu mag la jël duy ko ay preuve ba mu fees dell yóbbaaleel ko justice bi l'observateur nañu ñaar fukki question di ay laaj Pape Massata Diack tontu na ci démboo te laaj yépp mi ngi bàyyeekoo ci justice bu France li nar a ñuul ci soow mi rek L'Obs nee na ñoom moo di moom jàk mu ndaw di Pape Massata Diack double inculpation mi ngi koy yot ñu waaxu dem ci Les ko maître ay Tall Sall mooy léegi tel bu président de la république Aminata te mujj ko fa bàyyi yàgg na ko bëgg a jox ndombay tànk ci réew mi mu di ko gàntal li mu nangu tey nag mu di poste envoyé spécial bu président de la république ak poste premier ministre bi ñu dindi ci réew mi tax na mu bari intérêt léegi nag ni mu ko defee woon atum 1998 moom maître Aïssata Tall Sall noonee la koy defee Abdoulaye Wade mu di wan ginnaaw ab kabineem te nekk ci soxlay réew mi la sinekaay nañu moom maître Aïssata Tall Sall ndombal tànku député la mu yore woon ci assemblée nationale mënatu koo yore ba léegi ndax li ñu ko fal ba tax na joxe na ko ku ñu naan Soda Mariam Ndiaye moo ko remplacé honorable député Soda Mariam Ndiaye mi wutu maître Aïssata Tall Sall ci assemblée nationale laas ne nañu mooy léegi député bi gën a doon xale ci assemblée nationale mbocc la 27 yëmbal moo bett jabaram ak benn vigile ñuy def yëfi saay-saay ci kaw lalam waa ji jël aw mbolde dóor ko vigile bi